alxaaji Ousmane mi nga xam ni moom itam liggéey bu mucc ayib lay def ndax ñoom ñëpp dañu am cohésion ci wàllu liggéey bi ak membre yu ràññiku yi nga xam ni ñu ngi ci ñëpp nag di liggéey ci jokkalantey loxo jokkalantey xol ak xel ak xalaatin ak xalaat ba liggéey bu rafet bu mel nii mën a am ci organisation bii ngeen gis tey ñu ànd ceeg la haute autorité étatique du Sénégal muy son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye jaxaar Faye mi nga xam ni ñëw na fi nemmiku si xalifa bi ak njabootu xadra bi ànd ak ay kilifa yu am taxawaay ci keppaaram gannaaw gi tam son excellence monsieur le premier ministre Hadj Ousmane Sonko ñëw na fi moom itam démb rek mi ngi fi woon bi ñuy jox sëriñ bi ñoom jamaatu nuur as sunniya ci njiitu docteur Mouhamadul Mokhtar Cissé ñëpp xam post yi mu mës a occupé yëpp ci biir Sénégal ci état bi ñu dénk ko ko mu taxaw ci ci anam bu rafet mook mbooleem collège des ingénieurs yi mu àndal ci liggéey bi ak juristes yi ak administrateurs yi ñu nekk ñu ràññi ko ci liggéey bi nga xam ni moom lañu ñu gannaaw yàlla ci ndigalu sëñ Babacar Mouhamadul Mansour ak mbooleem njabootu xadra bi ak mbooleem jullit ñi ak mbooleem ñi am yéene yu rafet pour wane seen cofeel ci seen maam Cheikh Seydi El Hadji mi nga xam ni moom la doon euh, dundal ndono li mu fi bàyyi mook génération bu tedd ba mu àndaloon mbokk yi noonu rek la les générations se succèdent te ku ñëw rek il y toujours du pain sur la planche adduna kenn du ko mën a liggéey ba mu mat cent pour cent da ngay liggéey pour époque pour des époques bien déterminées ba fa sa doole yam sa ingéniosité yam fa sa xarañ yam fa sa yéene yu rafet yam fa ak coobare yàlla ànd sa itte moo tax itte rek am solo soo demee ba yàlla ne nag yow mën nga noppalu retraité yàlla na fekk ni ba ngay laata dem formé nga une autre génération ou d'autres génération yoo xam ni kenn du chômer dana fekk seen xel fees seen bopp fees ak xam-xam ak expérience seen xol yaatu laa biir ñu nangu jànkoonteeg coono yi pour doon de véritable héritier ndono yu dëggu ci li nga xam ni moo jëm ci li ñu war a taxawee gannaaw mag ñi te loolu feeñ na ba ci niñ ko waxee sànq ci ñoom sëriñ Moustapha ak Serigne Habib ñoom ñi doon dem ci CRD yi ak CD yi ñooñu ñëpp nag Serigne bi nee na mu di monsieur le président de la république muy monsieur le premier ministre que ñu ak ña ñu woonu mooy gouvernement bi nga xamee ni ñoom ñooy mën nga ni ñooy diraw al al al dawla sénégaliya mën nga ni ñooy nuñ nuñ leen di tuddee armure bi république du Sénégal sol ngir taxaw contre vents et liggéeyal nation bi liggéeyal société bi liggéeyal sous-région bi ak Afrique liggéeyal àdduna bi parce que nous sommes et nous faisons partie de ce monde nekk nekk euh, nekk euh, membre ci institution internationale yëpp te Sénégal xëy na tuuti na ci superficie waaye réew mu ràññiku la ci mag ñu baax yi boroom xam-xam yu mës a jiite Sénégal avant l'indépendance post-indépendance et pré pré-indépendance et post-indépendance boobu ba léegi gis nañu ni Sénégal bari na ay nit ñu ñu mës a am ñu am xam-xam lool représenté Afrique ak Sénégal ci institution internationale yi bokk na ca président Amadou Mahtar Mbow bokk na ca président Jacques Diouf FAO ak ñeneen ñu dul moom ñu dul ñooñu su dee ñi nga xam ni singulièrement dañu nekk boroom xam-xam liggéey bokk na ca ku mel ne Cheikh Anta Diop nekk suñu fierté national ak ñu bari ñoo xamee ni valeur lañu ñu pour Afrique Afrique kenn dema mu des gannaaw waaye Sénégal nag ci biir Afrique tam la loolu moo ñëw ba ci tey gouvernement bu bees bii fi nekk di yaakaaru Sénégal yëpp di yaakaaru Afrique di yaakaaru àdduna bi yàlla yàlla dimbale muy président muy premier ministre muy monsieur le ministre yaag sa mbokk ministre yi nga fi àndal ci délégation bu tedd bi lim nañ fi seen tur sànq yow yàlla teg la ci ndigalu yàlla mu jaarale ko ci ngëm-ngëmu ak yaakaaru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ci mu wóolu def ko premier ministre moom itam muy liggéeykat bu wéer te wóor ñoom ñu toog càmbar gëstu ba xam ni yéen ñi vous êtes une équipe gagnante góor ak jigéen ministre yeeg secrétaire d'état yeeg directeur de service yi en général wala sax totalement moo tax yal na leen yàlla dimbale ba la ngeen bëgg ci Sénégal ci progrès bëgg ko ci développement bëgg ko ci stabilité ak sérénité ñi fi nekk di dund di ay citoyens yàlla teg leen ci seen kanam ci keppaaru président premier ministre yàlla jàppale leen ba ngeen mën a réaliser loolu le peuple sénégalais loolu sëñ Babacar moom su ne mi ngi leen koy ñaanal bu baax a baax ndax ku leen ñaanal boppam la ñaanal bàyyam alxaaji Abdoul Aziz dafa doon wax naan Sénégal suñu gaal la gaal nag dañu war a àndandoo sàmm ko quels que les tumultes que le bateau rencontre sur l'océan de la vie la vie de tous les jours, la vie de tous les ans, la vie des vivants qui vivent sur terre. ñëpp a war a am esprit de partage, de cohésion, de responsabilité, de participation responsable ndax ku ko ci deful tam yàlla dina la ko laaj ëllëg ndax yent bi saai sallam nee na xubbul bëgg sa réew sopp sa réew sa bakkan sa bopp minal imaan yi bokk na ci ngëm yàlla moo tax sëriñ bi nee na yàlla na leen yàlla jàppale te yéene ji monsieur le président am ànd ceeg jëwrinam ji jiite jëwrin yi muy monsieur le premier ministre ak yéen ñi nga xam ni yéen a koy jàppale ci li ñoo leen di jàppale ci liggéey bi feeñ na ci seen wax waaye feeñ na ci sa kàddu yu rafet yi nga xam ni jëmmali nga ko sa waaye ngir wutu fi président ànd ak gouvernement bi yëpp ak membre yi fi teew ak ñi jiite état bi ñi nekk ci région bi le gouverneur de la région ak le préfet Mamadou ma min naa turam ndax euh, tabarakallahu ñoo dëkkandoog moom fii ngeen président teg ko fi ak soxna Zeynabou Gueye Touré bi nga xam ni mooy président du conseil régional ak suñu doomu ndey suñu mbokkum taalibe suñu xarit suñu wëllëre muy monsieur le maire de la ville de Tivaouane Demba Diop si mi ñëpp di gërëm di sant ci jaarale ko ci xalifa bi jaarale ko ñu yéege ko ci xalifa bi xalifa bi di leen ko seedeel ci liggéeyam bu rafet ak équipe municipale bi koy jàppale lii sëriñ yoon yónni nag ñu wutu ko ci daf ci ànd ak comme ni ma ko waxee ñi mu bokk responsabilité bi muy jigéen muy góor muy góor mu jigéen di ay cousin am di ay frère ay sœur am ku sant si ak ku santul si que ca jiitu muy son excellence monsieur Chamsoudine Ndoye doomu soxna Umul Khayri si bu maam Alaaji Malick ancien ambassadeur du Sénégal dans beaucoup de pays comme l'Égypte la Syrie l'Arabie Saoudite ba dem retraite yal na yàlla guddal fanam may ko wér mi ngi fii di ñu dégg ak rakku sëriñ bi di xalifa bi muy sëriñ Abdoul Aziz Touré bu bàjjen soxna Aïda Sy Malick doomu Cheikh El Hadji di doomu Baye Sëñ Hadi Touré mi nga xam ni maam alxaaji Malick moo ko yar te moo jàngal sëriñ Maodo si da moo jàngal sëriñ Abdoul Aziz si da baax boobu mokkal alquran muy sëriñ Moustapha si doomu soxna Nafisatu si Malick ci yaay yaayam moo topp ci alxaaji Mansour Balxaw mi bàyyi xalifa bi waaye ci yaayam la alxaaji Abdoul Aziz si xalifa bi ñëpp xam topp ñoom ñëpp ñuy rakk sëñ Babacar si ak Sidi Ahmed si di magu sëñ Mouhamadul Habib si muy Pape Makhtar Sarr fële ca Paris di doomu soxna roqo yu si Malick Alaaji Mansour balxam mi moo topp ci soxna roqo yu si soxna roqo yu si moom itam am na doomam ju jigéen ju fi des muy soxna Aseetu Sarr ñoom ñëpp ñuy cousin wu sëñ Babacar Mansour ci ndono li la ñu bokk suñ fi nekkul itam war nañu tudd seen tur xam ni suñuy sëriñ lañu sëtu Cheikh Alxaaji Malick lañu ak mag ñu baax ñu àndoon ak moom ñooñu ñëpp damay faral di leen tudd parce que fa ñuy toog dañu gis li ñuy wax ñu xam ni ñu ngi ci biir njaboot ga ñu jur tam xam ni ñu ngi ci biir war a ñëw dugg ci liggéey bi jàpp ci su amee ku ma fàtte yàlla na ma yàlla baal waaye su ma sañoon ñëpp laay tudd loolu nag sëñ Babacar Mansour nee na mi ngi ci mu ngi koy mi ngi ci réitéré appel solennel ba muy woowee képp koo xam ni xam nga ni am nga place ci liggéey bi nga ñëw jàpp ci ndax sag bi sa sag la ndam li sa ndam la sagu réew mi la ndamu réew mi la sagu lislaam la sagu l'humanité tout entière la ñu jàpp ci liggéey bi ndax Sëriñ Maodo si bërki démb rek mi ngi koy wax ne yàlla nee na dafa yërëm nit ñi yërëm jaam yi distingué kenn ak kenn du katolik du protestant du musulman dans toute sa compos dans de tariqa différentes muy chiite muy sunnite nous sommes tous des enfants d'Adam loolu la yàlla indi dogal ko su neexoon yàlla ñëpp nekk ca synagogue ya kenn du ci mën dara su neexoon yàlla ñëpp nekk ca cathédrale yi kenn du ci mën dara su nekkoon yàlla ñëpp nekk ci grande mosquée kenn du ci mën a dara mais yàlla mu tërale nii àdduna bi il nous faut donc respect mutuel dévouement mutuel loyauté mutuelle entre les adeptes de toutes les confessions qui puissent exister sur terre que l'on kii qui que soit nañu buggante soppante dimbalante ji Alaaji Malick dafa mës a plaider pour loolu fii moo tax su tabaski daan ñëw daan na am xaru tabaskeem may daan jënd ay xar spécial reyal ko ñu nekkoon ay catholique fii ci biir Tivaouane ne waa këram nañ leen ko defaral jox leen ay xar spécial du xaru tabaski ñu am waaye bëgguñu suñu yàpp yi ñi sant si ak njaay wàjju wi di xeeñ te fekk na séeréer yi nekk fi te duñ ñeen duñ leen ci bos duñ ñeen ci bosal loolu defe naa ne am na ko ko moom muy mbokk moo xam ni diggante séeréer ak tukulóor diggante séeréer ak tukulóor mën nañ ci wax lu bare ndax cousinage bi xam ne moo dox ci suñu diggante ak diggante euh, ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ci ay ethnie ba ci loolu sax ci fraternisation la bokk ak humanisation ak socialisation boo xam ne nit ñi dañ ko war a am loolu yëpp nag dafa bokk ci léegi bu ma Maodo bàyyi kuy relire di relire toujours ay mbindam da nga ko ca gis moo tax téere yooyu yëpp dañ ko di traduire en français et en d'autres langues sëñ Babacar nañ ne loolu yëpp dañ ko war a bàyyi xel kon sëñ Babacar ni kon mi ngi gërëm président ci taxawaayam mi ngi gërëm premier ministre ci taxawaayam ba démb tey ba démb ji weesu ak ñi mu àndaloon gannaaw président waaye mi ngi lay gërëm yow mi nga xam ni boobu ba léegi yaa un groupe de ministre et de ministère yéen a doon ànd ak njaboot gii di seen njaboot muy Cheikh Mouhamadul Moustapha muy Cheikh Mouhamadul Habib muy Alhaji Ousmane Samb le président de COSCAS muy ñoom xalifa Niang Khalifa Lo ak képp koo xam ni taxaw na ci liggéey bi di dox di wax di jubbanti comme que dañuy comme que mooy suñu slogan jub jubal jubbanti ba lépp loo xamee ni daan na xaw a déng gi mën a tegu ci raay bu wér te loolu def ngeen ko ba ci tey lu jëmoon ci CD ak CRD yi nga xam ni seen gouverneur bu tedd bi tàmbale ko sax ci seen euh, préfet bu tedd bi préfet président gouverneur président ak état bi yow nga nekk seen kilifa taxaw nañ ci taxawaay bu rafet yaa ngi leen yàlla fay gannaaw loolu ñu ngi